Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre euh, émission rubrique intitulé L'Afrique en marche. L'Afrique en marche revient aujourd'hui sur deux sujets brûlants, deux sujets d'actualité qui continuent d'effrayer la chronique un peu partout sur le continent africain. Euh, D'abord, nous allons nous intéresser euh, sur la situation à N'Djamena, au Tchad. L'ancien président Idriss Déby Itno a été sauvagement abattu par deux balles euh, dans le dos. Kétégus de Hypno, je le disais il y a trois jours, Hypno est venu au pouvoir en après avoir renversé le régime de l'ancien président Hissène Abel, qui vit paisiblement en exil au Sénégal depuis euh, ce pays frère est bouleversée par les conflits ethniques tant au nord et au sud. C'est pas la première fois que le FARC, ces rebelles, euh, ont toujours euh, protesté et fusillé euh, l'ancien président Idriss Déby, qui s'est accaparé au pouvoir pendant plus de 30 ans. C'est inimaginable sur ce continent africain. Alors, frère Tchadien, va-t-on vraiment vers une paix, une démocratie euh, Il est temps de décongestionner euh, nos frères euh, et tchadiennes. Ça suffit. Euh, l'autoritarisme, la dictature sur le continent africain. À quand l'Afrique avancera C'est la question que tout le monde se pose chez les Africains. En ce 21e siècle, partout sur le continent, euh, c'est l'émotion, c'est l'indignation et la conservation. Je le disais, cette longévité au pouvoir nous a toujours bouleversés et mis au genou. Il est que les Africains prennent leurs responsabilités ce qui s'est passé au Tchad est une aventure historique pour l'ancien président Idriss Déby, qui n'a jamais écouté le peuple tchadien, euh, ni dans la démocratie, ni dans l'expression. Euh, les barons sont bafoués, je l'ai toujours dit. Euh, le Tchad regorge beaucoup de cadres et de talents. Euh, imaginez-vous ce pays qui avait souffert la démocratie, nous lançons l'appel à son fils, Mahamat Déby. C'est un jeune de 37 ans, imaginez-vous. Il, est, il doit jouer le jeu. Il doit rencontrer la classe politique. Il doit pas s'accaparer au pouvoir, faire comme son père qui a tenu le pouvoir pendant plus de 30 ans. Hélas, chers Africains, essayons de redresser la barre, remettre le train sur les rails, euh, s'entendre avec les institutions françaises internationales, C'est l'heure de tirer la soirée de l'âme. C'est l'heure également de siffler la récréation. L'Afrique en a marre de cette dictature. Euh, on peut dire qu'il y a un ouf soulagement qui se profile sur le continent africain. Tous ces dictateurs commencent à partir. Euh, où sont les cadres africains euh, Où sont euh, les intellectuels Et pourtant, c'est les intellectuels qui sont restés toujours absents. Chers Africains, revoyons euh, notre doctrine politique, revoyons nos positions afin de bâtir une Afrique, unie, prospère démocratique. Nous souhaitons que la paix revienne très rapidement au Tchad afin que les Tchadiens puissent se serrer la main. beaucoup, beaucoup à Afrique, te li ñuy waxtaanee mooy li am fële ca Tchad te dafa daw yaram ki fa nekkoon président bi gis nga fi dañ ko boom euh, bi ñu ko boomee nag ñu tëral benn comité de militaire transition bi nga xam mooy gunge tchadien yi ak ak genn wàll wax mooy dix-huit mois euh, ak genn boobu nag ki nga xam mooy Mahamad Déby doom ji war na respecter transition boobu. teguñu ko fa nag pour mooy euh, buur di bum yi def comme bàyyi mu doon def euh, suñu mbokku càgge yi lay waxal suñu mbokku africain yi war nañu yew defaraat Afrique Afrique bu nasaxale ñun la bu delloo ginnaaw ñun la te jot na ñu sedd xoolaat suñu démocratie Afrique xoolaat li ñuy jàngatee droit de l'homme ak wala jox ko gis ngeen koom-koom waaw fi doxatul santé doxatul éducation doxatul partout Afrique yaa ngi jooy leen bu taxatal ki ñu teg coono yëpp mooy les occidentaux ma ne suñu mbokk occidentaux yi dañu téye seen loxo téye seen tànk ñu bàyyi africains yi demal seen bopp Afrique war nañ ko mën a suuxal war nañ ko mën a teg si kaw raay naka à condition que ñu bàyyi teg nga nay bokk bokk bàyyi defar suñu Afrique loolu moo ñu ñor te loolu mooy intérêt Afrique di woo ki nga xam ne aussi mooy suñu mbokku Mali yi euh, gis ngeen foofu am na benn gouvernement de transition ginnaaw bu ñu dàqee l'ancien président Ibrahima Boubacar Keïta mooy même son approche que Tchad am na benn gouvernement de transition kooku at ak genn wàll tamit euh, ñu organiser ay élection présidentielle nañu bañ a di yàgg si pouvoir bañ a nopp peuple yi loolu du Afrique loolu développement moo tax tey ñu leen tey l'Afrique en marche jëmale ko euh, coup d'état bi au Tchad ñu gën a góorgóorlu suñu mbokk tchadien yi defaraat seen réew euh, Mahamad waxtaan ak kujje bi ONG euh, yi société civile borom kàngam yi fële ca Tchad bu ñu ko defee Tchad dina delluwaat dans la paix et dans la stabilité di gërëm ñëpp di sant ñëpp waroon tey Afrique en marche jëmale ko euh, situation bi ak fitna bi am Tchad ginnaaw bi rey seen paysan Idriss Itno à tous les Africains di gërëm ñëpp di sant ñëpp ba ëllëg beneen